Ah, xeexoon njogonaloon na équipe Real Madrid bi nga xam ne match ba léegi a jeex gonay Madrid yi ah, dañoo ñeenti bal ah, lañ leen fëgg ci taabal ji ci match boo xam ne daanaka match boobee mënuñu ko woon a moom ndax gonay Madrid yi nga xam ne daanaka dañoo ñëw ak manquant yu bari yoo xam ne moom la def équipe bi matul woon yëmbul benn yoon gars yi nga xam ne dañoo blessé ak ñi nga xam ne dañoo am cumul de carton loolee tamit andil na jafe-jafe équipe bu Madrid bi nga xam ne tey ji métti na ci moom dara waaye nag équipe bi nga xam ne mooy xeexoon di ay tamit nañ leen nangul seenu jàmbaarte gi nga xam ne def nañ ko googee wane nañ ko ci biir terrain bi nga xam ni ñu ànd ak Modric mënuñu woon dara ndax ñooñee jàpp nañ ni ñu bari ci ñi nga xam ne mooy ay commentaire ay Real Madrid nga xam a ni Real doy waar waaye loolee ka ko def mooy ah, Tani Castellano mi nga xam ni ah, daanaka kase na rythme Real Madrid bi ndax fukki minute ak ñaar sëngëm la def ci li nga xam ne mooy terrain bi dugal benn bit boo xam ne bu am solo ah, daanaka mooy ñaareelu bit bi ñetteelu bit bi mi ngi ko dugal ci ñeent fukki minute ak juróom-benn juróom-benn fukki minute ak juróom-ñaar wala juróom-benn fukki minute boo xam ne moo tëj làng gi Real Madrid daal di nan melu fee waaye ñoom win si siñor doon nañ góorgóorlu ba win si moom it dugal benn bit boo xam ne daanaka moom it mi ngi ko dugal doon góorgóorlu waaye nag Vasquez moom it dugg na ci li nga xam ni mooy bit yooyee ñaareelu bit bi nga xam ni Real dugal na ko Lucas Vasquez di latéral moom moom mais moo ko dugal waaye loolee euh, teewul woon benn yoon nërmeelu gi nga xam ni gone yi seulement yi weex yi danoon ko nërmeelu ndax ñàkk capacité euh, ci li nga xam ne mooy bit yi ndax loolee euh, xeebu na ci digganteem ak xeexoon xeexoon nag dafa pare cent pour cent ci militaire bi tëccante bi lépp di jaar yoon digg militaire bi ak latéral yi xeexoon ni ay jinn ci digg terrain bi loolee nag moo tax Real Madrid daadu suulu ci kanamu bal ñaar eh, topp leen ci li nga xam ne mooy Aladji Malick TV xibaar yeneen yi mi ngi ñëw